waajur bu nekk jëlal sa matuwaay ndaxte lii nekk na jikko boo xamante ne jikko bu bon la ndaxte boo xoolee àdduna bu mu sosoo ba tey ci depuis suñu maam aadama ba ci jamono suñu maam yonent yàlla luut ci la problème bi amee mooy góor jigéen mais yàlla subhanahu wa taala xoolal yonent boobu bokkul ci ñooñu de waaye ñu am jikko boobu yàlla wàcce na leen mbugal boo xamante ne amul benn génération bu am mbugal boobu ba tax na maa ngi balancer message waajur yi ak ñun jàngalekat yi ak yarkat yi nañu xool suñu doom fu ñuy teg tànk waaye tamit nañu xool fu ñuy jàngal suñu doom heureusement kër ak coobe bu ñuy wax suñu formateur yi lan la ñu wax ñu ne mais loolu bu leen si xalaat parce que ñun du ñu nangu kenn jàngal loolu suñu doom kon ñun tam du ñu nangu di former leen loo xamante ne àndul ma ne ko alhamdulillah parce que loolu mooy xel loo bañ nit def ko sa doom bul nangu keneen def ko sa doomi eh, eh, eh, doomi jàmbur kon wax bi fu mais mu ngi tourné fu ne da tax na man maa ngi ñaan kenn ku ne na nga jàngal sa diine nga xam ko parce que lii ku xamul sa diine dañ lay yóbbu parce que xaalis lañ yor dañ lay financé xaalis bu boobaa ñu baab la te xam nga ñun tey lu ñu gëm xaalis la boo waxee noo awma lu may dund mais wa man taraka say an lillahi awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox ko lu gën ci loolu loolu daal la la mën a wax ci kii bi ci séminaire bi ñun fii Ziguinchor jàpp nañu date boo xamante ne région yëpp ñoo ko jàpp joxe nañu benn rapport wala daal benn discours boo xamante ne pour imam yi yëpp def ko ci jàkka yi pour wane luy loo xamante ne mooy laam leen ci dëkk bi mais kenn ku ne tamit fu ngeen nekk def nañu seen ñaxtu di wax seen doléance di xamal jullit yi am na luy xew mais lii mooy suñu taxawaay ci lii parce que lu mooy loolu mooy lu war mais ñaareel bi am na tamit loo xamante ne ñu ngi koy dégg comme comme maa ngi dégg am na ay société yoo xamante ne dañuy naan boo demee da ngay joxe sa identité ak sa filiation nga joxe 2000 bu yeggee après dañ lay woo ñu jox ko 50 000 mais lu ñuy jël ci fili eh, fili sa filiation yooyu man suma xel dalul ñii nee nañu gars yi de ñoo def signe parce que il paraît que yooyu dañ koy balancer assemblée pour wane ñi ànd nañu lu ñu soxla loolu moo tax ñun tam bu ñu defee suñu doléance yooyu am na tam ay PV yu ñu yor ñun tam dañuy def sa kii eh, sa filiation bi pare nga signé pour ñu wane ko léegi nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla suñu PV yi gën a sakkan bu sakkanee incha allah ñun ñooy gagné te bu soobee yàlla yàlla duñu seetaan yàlla yàlla dimbaluñ ba ñu réussir ndaxte lii lu bon la. te gis ngeen problème bi ba mu amee ci réew mi ba léegi boo ko xoolee dëkk bi mu ngi ci am ay gàllankoor ba léegi man bu ma remarqué lii bu mu commencé am Sénégal depuis 2005 si lañ commencé di wax tur xaw ma nu mañankase mañankase xaw ma lan lan si la commencé mais léegi mu dem naa ba ma dégg sax ay góor benn góor ak góor ñuy defante ko ci mor euh, ci cimetière nga xam ne loolu yéeme na ragaloo yàlla ba ci biir cimetière yàlla yàlla musal ci loolu